ñun li ñu def euh, euh, nawuñ ko dañ ko xeeb lool par rapport ak suñu yéene suñu yéene nag mooy fexe ba lycée bi jëm kanam incha allahu taala waaw loolu yaakaar naa wax naa ko sax nee naa euh, dugg na ci fi war a jaar na fi war a jaar fi mu war a jaar mooy yaakaar naa représentant ministère mi ngi nii muy monsieur El Hadj ñëw na déglu na gis na dégg na yaakaar bu demee kon dina eggal li nga xam ne mooy bëgg-bëgg yi te itam dëgg la naam lycée mënta nekk ci commune bu ñu defee une bonne définition de la yaakaar naa ne kon dina am ruq ruqaat yoo xam ne war nañu def ay lycée lu toll ba juróom ba juróom benn lycée bu amoon ci département bi moom macha allah moom kenn dootu jóge di feneen fu sori di jàng te buñ seetloo ci commune bi nag dëkk yi ba mbos wala ay daara mbos wala fu nekk ñu ngi jàngee si fii nag yooyu maanaam c'est des trentaines de kilomètres dañ ñoo nekk si fi jàngu seet jote ñu dem kon bu amee lycée jógee boori mbos ak yu mel noonu dana tax ñoom a am a jege waaw dañu wax jàpp nañ ko le 23 janvier 2022 may teg ne responsable politique du xaar ba jàpp élection pour mu dem responsable politique toujours da nga nekk si le terrain jege askan wi jëriñ leen xam li ñu bëgg nga di ca dox. élection dañuy wax ne ñun man Moustapha Ndiaye ñi ma àndal docteur Diallo ñun àndal élection bu ñu nee suba la ñun suñu caution mi ngi suñu di xaar parce que caution la laaj dugal suñu caution commune dugal suñu caution départementale man sa wàll bopp nag candidat laa conseil départemental bi du leer na Ibrahima Diallo moom lañ bëgg fii suñu candidat ci commune bu Guinguinéo waxuñu yaakaar sax dañu romb naaguwuñu nag ah. waaye gëm nañu ne ak ndimbal yàlla suñu borom ak liggéey bi nga xam ne ñu ngi koy liggéey ànd ko responsable yi nga xam ne dañ ñu ngi ci xaaruñu dara vraiment am na yaakaar dinañ gagné bilan pour ma ci waxagum parce que man mii di waxee conseiller départemental la ñu bari xëy na duñ ko ëmpale mais li sos conseil bi sama ah. a baax bilan leen invité yéen ngeen ñëw naa leen tegal bilan population bi ñëw dinañu àtte boobaa parce que li wax moom date boobu ñu jàpp bëgg bëri bañ bëri te faw jël am na te ndam li ci ñu lay féetee incha allahu taala jërë ngeen